Euh, c'est Abla Diouf, euh, coordonnateur du mouvement Solidarité euh, Citoyenne. Citoyen. sommes commune de Thiès Nord plus précisément dans sur la route qui mène vers Tivaouane le mouvement Solidarité Citoyenne de sa de dafa à Thiès ça fait trois mois à peine

liggéey bi nga liggéey solde ba fonctionnaire yi gis ko nga def liggéey bu melni bu mel noonu fi à Thiès Nord bu population bi gis ko loolu moo waral la naissance du mouvement solidarité citoyenne ñu tek ci defar sa gox euh, solidarité citoyenne nak dafa nek philosophie euh, dañoo xalaat ni jamono toll na fo xamni Waru waratuñoo tok di xaar mairie wala ñu tok di xaar état kon li nga xamni ñun moy suñu mbir war nañ cee jóg dajaloo xool suñuy problème lan la ñu jëm cee apporter une solution bu nekkee solution bi Sénégal lay jógee ñu dugg bi Sénégal xool nu ñuy euh, lijjantee solution bi bu nekkee solution bitim réew lay jóge ñu dem bitim réew jéem a uti solution bi alors ci kaw philosophie boobu nag ah ñu ànd ceeg nit koo xam ni ah vraiment ay compétences am Sénégal yëpp xam nañ ko muy monsieur Charles Charles Émile Émile Six. Euh, action yu ñu def nag bëri na boobaak léegi ndaxte dañuy def rek ku xewle rek ñu ànd ak yow pour wan la ñun suñu esprit solidaire euh, tey euh, gàmmu gi la ñu bëgg a wane ni Sénégal benn la Sénégal amul ay clivage religieux Sénégal amul problème ethnique ah moo tax ñu ñëw defar suñu teraanga yu bëree bëree bëri taxaw fii nag ci tali bi nga xam ne mooy euh, fi la pèlerin yi di jaar pour dem Tivaouane séddale ko ci suba ba léegi euh, ñu ngi ci démb ba léegi sax laa yàq parce que démb ñu ngi woon à ngent waaw taxaw foofu séddale séddale séddale ba ci xaaju guddi gi lu ñu yoroon jeex ñu dem euh, xëy indiwaat fii nii continuer ko loolu day wane ni Sénégal ci solidarité la war a la war a dox jamono yi ñu weesu euh, bi fa sport ayee dañu dem stade benn final ñu am na final zonal yu bari yoo xam ni participé nañ ci am na boo xam ni def nañ ci parrainage

avec le président Macky Sall And avec le président Macky Sall liggéey liggéey bu mucc ayib fini à Thiès Le pouvoir xam ni opposition la fi ah ñu jéem ko écraser jéem ko écraser parce que suñu objectif numéro un ah lenn la ginnaaw bu ñu eu suñu gox ba pare liñ ciy le 24 février 2019. Toujours bi waxuñu deuxième tour waxuñu lenen premier tour bi la wax ñu jox président Macky Sall une victoire incontestable et incontestée dans toutes les localités du Sénégal mais plus particulièrement finie à Thiès et à Thiès Nord. Nous ah, lol nak ñu le leader Charles Emissis. Nous ñu eu également avec cette jeunesse yi nga xam ne ñoo dëkk fii nii à Thiès à Thiès Nord yi nga xam ne c'est une jeunesse consciente xam nañ bu baax li leen di xaar xam nañu également mouvement bi fan la mën a yóbbu euh, gox bi ah loolu moo tax nag euh, ñun ñuy ñuy ñu yëngatu yëngu bi nag bàyyiwul benn boor tudd naa fi religion tudd naa fi jeunesse c'est la même chose avec les femmes dajale femmes yi defal leen formation jox leen ay diplômes utal leen financement L'officiel Charles avec son mouvement solidarité citoyenne Il ni bu mouvement yep le Sénégal yep amoon un esprit esprit de solidarité kon affaire yi kon Sénégal dina dina gën jëm jëm faire kanam. kon en tout cas fini à Thiès Nord fini dans la commune de de Thiès en tout cas il faut savoir que le mouvement solidarité citoyenne défar sogox est là avec notre camarade monsieur Charles Émile directeur de la solde prêt à travailler sous le soleil prêt à suer. 100 et haut pour réélire le président Macky Sall au soir du 24 février 2019.